gaynde yu Sénégal yi mujj ñoo jeexal li nga xam ne moom mooy tournoi bu Yaoundé bi te amuñu ci benn défaite waa Angola yi ñoo leen daan ci match de qualification bi doxoon seen diggante ak ñoom 82 51 jouru Mamadou Gueye pa bi dañoo passé à côté ci seen jongante bi nga xam ne moom lañ doon amal niki tey jii ba taxoon sax ci mi-temps bi ñu ngi leen mëne woon 44 30 maanaam 14 points d'écart ñu dominer leen ci bépp pàcc gaynde yi sonnoon loolu ñi leen gënoon sonal bokk ci joueur extérieur yu Angola yi yu ci mel ni Pedro Bastos am 15 points ak Gerson Gonçalves am 10 points daal di xarañoon loolu ci tiir yi. côté sénégalais benn jour rek moo ci wane boppam bu baax mu di Youssou Ndoye dugal point yi ci match bu metti bi nga xam ne gaynde yu Sénégal yi jongante nañu ko waaye donte ñàkk na Sénégal moo des ci bopp groupe jamono ji nag seen xel nekk ci phase finale yu afro basket yi nga xam ni ñu ngi fa yéene am weeru ut bi ñu jëm.